maa ko fa dama nga sama dama ini ma teel di boo ñëw ma jox waaw dama papa ma laa def ni day lox da kaa taxaw si naaj bi ah maaleykum ma lox may lox man lox sa waay sa waay xam nga dama la gis ko ko la la bëgg nga xam xanaa laa bëgg nga xam ko yow tamit nga jaar ni sangu maaleykum dafa romb sangu jaaree ni nga sangu bu mu la gën a gore mm-hmm. dama sangu sa waay maaleykum ma laa lox daa xeeñ waaw mais yow ma tey déggoo gën a ma ne ma damaa xeeñ xeeñ waaye da ngaa tini sa waay sa waay sa waay sawaay dugul fii wax la mun ngaa ñëw ngay sawaay sawaay lu jeex yow ay jëf bàyyi ma ko la jaay ni nga sangu dama la xay sangu rek nga naan maari kumba maari kumba na sangu ji yóbbu mu sangu yow yow yóbbu la na dem de na dem yow yaa gën a xëj maari kumba jaay ni nga sangu jaay ni sangu nga yóbbu ko di nga jaay ni sangu yow wala da yow da nga bon sa bopp yow yow wala da nga bon jaay ni sangu yow mooy bañ si sangu got no fear. Yo, yow jàpp lay daw. Sangu sangu ñëwal sangu eh ama xiir moom ama xiir may ko. Ñu ko ñëw sangu ñëw sangu ñëw. Ko dal yow. Waaye kii yow yow ni daa doon la jàpp si kii yow mu gaaw. doo kon boo sangu su dus bii naa ngay sangu ay ndox ndox indil ma indil ma indil ma rek yow bañ ndox ah. ma waaw indil kii kay sangoo bu soobee ay ma sang ma sang saa ndox ko sang indi eh yow dina suma lu suma imbécile bi nga doon doo sax nga xëy nga xëy xun nga bu jël sama grand bu ne dégal ma la walaay waxal de sama grand boo ko jëlee dama defal mu saaga de mënoo ma ñaaw eh, ma may ba wax ba bëgguma nday wax ni mu saaga nday maa am na gisuma ko. xam nga gën a réew ndaay ñun ñëpp.